Babacar Sall maa ngi ah. lay nuyu. maa ngi Sall nga nekk euh, coordinateur de la coordination nationale des étudiants orientés dans le privé récemment ngeen organisé benn point de presse euh, di wax si conditions yi jafe-jafe yi nga xamante ni yéen a ngi koy jànkonteel euh, ci yaatal est-ce que mën nga ñëwaat ñun ci situation bi. waaw la état du Sénégal depuis 2018 dafa euh, xalaatoon am xalaatu orienté ay étudiants dans les services privés parce que boobu gisoon na ni université publique yi presque mëntu jël euh, étudiants yëpp état bi xalaatoon dox ko orienté ay ay étudiants si université privée yi loolu bi ñu ko xalaatee ñu jël ñu orienté boobu doon jàppoon xalaat bu baax la parce que pour dëkk mën a développé dafa am jeunesse boo xam ne day qualifié jeunesse boo xam ne da nga leen di orienté da nga leen di éduqué pour ñooñu waxuma ñeneen mais ñoom d' abord suñu amee formation de qualité dañuy former itam benn génération loolu kaa du baaxoon mais malheureusement dañu constaté depuis notre orientation que état bi jet bu mu war di fay parce que dafa signé won université privée que chaque mois état du Sénégal war na fayal chaque étudiant quarante loolu su fekkee da nga ko cumulé annuel bi day nekk quatre cent mille francs pour chaque étudiant imaginez état du Sénégal ñàkk a fay bor boobu ñàkk fay lu nga xam ne mooy engagement bi nga xam moom la amoon ak ak ak looloo taxoon tool bor bi si seize milliards mais fu mu toll nii tool bor bi mu donc loolu soo mooy su fekkoon ne respect accord yu nga xam ne taa la jëloon ak université privé su fekkoon respect na ko jàpp naa ne kay problème bi étudiant yi mais gis ni ñàkk fay boobu looloo taxul étudiants yu bëri ñu leen daax si université que université privée soo fayulee dañ lay daax looloo taxul étudiants yi ñu bëri ba leen daax itam si université yi ñu si bëri dañu découragé ba tey immigration canadien bi ñuy dégg yenn étudiants yu si bëri si université yi jël nañ ko ndax ba leen daaxtee si université privée yooyu ñooñu ñu si gën a bëri ay soutien de famille nan toog seen famille yi amuñu itam yeneen moyen pour fay pour jàng donc loolu lépp dañu jàpp ni état du Sénégal responsabilité la pour mu fay det boobu mais itam jàpp na ni boo boog léegi am na étudiants yoo xam ne pare na seen formation depuis deux mille vingt ans. jot seen ay diplôme loolu itam dañu jàpp ni su fekkoon ni dette bi fayoo noonu su fekkoon reste à considération bu nu waroon bi dund itam si université yi état bi jox na ko étudiants yi kon euh, établissement privé itam dañ koy jox euh, dañ koy jox ñoo xam mooy étudiants yi parce que étudiants yi droit bu nu am bi ñu nekk privé moom noonu am ñu nekk ñu public mais itam moom même droit boobu moom lañ xam ne université yi. Hmm. donc manque ak congélation ak li nga xam itam moom mooy def boobu looloo moom lañuy hmm. euh, est-ce que euh, jafe-jafe yooyu nga xam ni euh, lim nga ko léegi est-ce que autorités yi yëg nañ ko est-ce que jéem ngeen a bind lettre euh, jox ko les autorités compétentes waaw xam nga ñun étudiants privés yi dañu am na ñu organisé ñun mosoo dégg ñu taal ci dëkk bi ñun étudiant privé moo taal moo too dégg ñu taal na wax nañu lu ñaaw si dañ ñun étudiant privé moo ko wax lu ñaaw nous sommes très responsables lépp lu ñuy def lu nekk dañuy xool yan voie et moyen nañu war mën a def booy suñu solution ñu moon ko am mais it lu la métti ñu mën ko wax mais teg lépp itam si règle ak loi yi pour bañ a yàqal kenn mm-hmm. looloo tax depuis ñu dund suñu injustice yi def depuis même depuis président Macky Sall parce que ñoom nañoo orienté woon lu ñu doon def mooy doon di bind ay demande di ko yóbbu si ministère bi di ko yóbbu présidence di ko yóbbu pour wax leen ñu rencontre leen pour expliquer leen situation parce que ñoom xam nañ ko mais quand même dañu dañuy décider tout le temps ñun pour di leen rencontrer pour di ñoom pour ñu jéem a xool yenn solution a pervers bay depuis tey euh, nga xam itam mooy changement régime am na régime bi fi nekk daan jógee fii beneen régime itam ñëwaat mais dañu jàpp ni bokk régime bii ñëwaatee ba léegi lu njëkk a mooy dañu gis ni docteur euh, Abdourahmane Diouf bi mu ñëwee lu mu njëkk def si université yi privé yi nee na daf doon rencontrer les chefs de département privé nan ngay mën a rencontrer directeur école privée yi waxtaan ak ñoom ba organiser nam séminaire sali rencontre les rencontre syndicats yi te yow woo euh, yu woo étudiants privé loolu mooy manque de respect ak considération bi ñu doon dund si benn régime bi moom ñuy dundaat ko léegi loolu nag bi ko gisee ba fan yi itam bi bag bi paas yi ñu ni dañu bëgg orienté waat itam yeneen eh, étudiant indiwaat rek itam dans les services privés ñun kat avec la coordination nationale des étudiants privé ñu gis ni dañu doon daax si université privé ba léegi ñu bëri si ñoo jot pour ñu seen ay diplôme gis ni itam respecté de la so ba war am amuñu donc ñu gis ni donc suñu waree orienté waat suñu yeneen rak suñu yeneen seen frères et si étudiant privé kon ñu problème ñun doon suñu tax donc ñu organiser de presse pour wax ni injustice bu ñu doon dund dootuñu ko nangoo fenn te lu jiitu itam point de mooy def nañu demande adressé ko li nga xam itam moom mooy demande d'audience ah. yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy primature am na beneen boo xam ne itam ñu ko doon ko ministre de l'enseignement supérieur justement pour rencontrer autorités yi pour wax leen suñu problème mais demande yi yi nga xam ne itam envoyé nañ ko yóbbu nañ ko déposé ko ba léegi am nga retour donc da ngay gis ne gëdd bu ñuy wax ñoom autorités yi ak changement bu ñu bëgg di wax gisuñu ko benn yoon ndax su fekkee ne yow da nga bëgg changement te gis ay jeunes ñoo xam ne dañ leen orienté ñu def acte responsable yooyu di def ay demande di déposer pour waxtaan ak yow je pense que le minimum moo doon rencontre leen pour xam ñun yan problème ñuy dund balaa même ngay orienté te pourtant euh, Babacar Sall état bi mi ngi continuer di orienter ay étudiants ci privé bi comme ren rek nouveau bachelier yi fas yéene nañ see yóbbu ñu baree bari ci privé bi malgré dix milliards yi ñu ameel école privée yi naka nga ko gisee. waaw loolu da leen gis rek ni ñun nu ñu sacrifié tey étudiants yu si bëri di jël migration pour dem di Europe parce di France noonu amutoon benn espace seen réew ñu gis itam ñu nu waroon déglu itam dégluwul ñu benn yoon ñun problème yu dundee ñun suñu rakkee ñu ko dund dèjà lu ñu nekk wax autorité yi di ko wax itam docteur Abdourahmane Diouf mi nga xam mooy ministre de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur lu njëkk def mooy jéem a xool ñun problème yu doon dund problème nak nañ mën a def pour indi itam ay saafara si université parce que université yi bëri dans les dans les dans euh, les depuis état bi xalaatoon ni dafay orienté ay étudiants ñu si bëri ay këru jàmbur nañu looy woon jëlee ko def ay ay ay école justement pour politiquer ko am si ay quota bu nga xam ne moom day daal parce que bu ñu fàttewul quarante six mille étudiants moom nañu orienté dans les mille imaginez quarante six mille étudiants léegi comme dëkk moom lu bari koy politique mais politiciens yu bëri bëri déggeen état day orienté quarante six mille étudiants ñu si bëri seen kër nañu de transformé ko wala luy ay këru jàmbur transformé ko def ay salle de classe yi école formation de qualité bu ñu doon xaar ci temps yi ñu si gën a bëri amul formation boobu parce que école yi norme yu mu waroon di respecté respecté mais itam dañu jàpp ni école yi gën a bëri dafa am ñaar dafa am lu tuddee accréditation ak habilitation loolu lenn rek moo koy joxe wala benn organe rek moo koy joxe mooy ANAQ mais école yi bëri si ñooñu amuñu habilitation amuñu accréditation te loolu donc ce fekkee am na mooy fu mu amul rek école bu mu amul ba xaar foofu noonu nga génn fa benn étudiant boo xam ne ci ak ak ak formation de qualité parce que diplôme yooyu sax pour nous reconnaître c' est tout un problème donc problème yooyu yëpp moom la doon dund si université bi donc balaa ñuy organe quoi benn étudiant état lu mu war a njëkk a def moo li nga xam itam moom mooy moom mooy école privée yooyu balaa muy orienté waat yeneen étudiant ñuy dundaat même problème ñu ni sàkkee si waat itam comme ñu xam Euh, Babacar euh, tey ji aussi ñu lay laaj jafe-jafe yi nga xam ne euh, da ngeen koy faral di jànkonteel su ngeen paxee seen formation yaa ngi junj ne pour ngeen jot seeni diplôme dafay métti mais yan jafe-jafe aussi nga mën a souligner ci côté boobu. effectivement xam université du Sahel mi ngi nekkee Mermoz université boobu Issa Sall mi nga xam ne moo ministre. conseiller auprès du chef de l'État monsieur Macky Sall moom mooy directeur école boobu école boobu gis na ne lu ëpp si cent étudiants ba fu mu toll nii jot ko ñu seen diplôme parce que sa salle dafay laaj chaque étudiant deux cent mille si nekk pour nga de si diplôme il faut deux cent mille francs su ko defee état bi comme fayu su état fayu ñu delloo ces deux cent mille yooyu loolu ñu jàpp ni respect ak considération bi nga xam ne autorités yi moom lañ waroon jox étudiants yi moom lañ lay ñàkkoon jox looloo tax yoon ku mel ni Issa Sall ak yeneen chef de l'établissement privé yi respecté wuñu benn euh, privé yi loolu tax ñu leen daal sam boobu ñu gis ni en fait problème yooyu nga xam ne itam dund nañ ko muy ñàkk jot diplôme yi si itam am na suñoo xam ne pare nañ seen formation depuis deux vingt et un hmm. mais ñooñu ba léegi fu mu toll problème sa sax day am seen problème donc loolu lépp itam ñu mën a jàpp ni su fekkee étudiant yi dañu am problème pour de seen ay diplôme am problème itam pour am stage bu amul stage am emploi donc loolu lépp itam dañu jàpp ne ay problème yoo xam ne état parce que dëkk bi fi mu ñoo ngi gis jeunes yu bare ñoo ngi jóge ci réew mi ñu dem fu xam ne ñaati jeunes ñoo dee mu ñu leen di ñaanal itam yàlla yëral leen al leen ñaati jeunes ñoo dee feneen amaana nguur bu nguur bi rek moom moo fës mais ñaati jeunes ñoo dee feneen ñii waxtu lu tax wax euh, élève wala étudiant mais am ñoo xam ne ñoo ngi si ay professionnel nanu mais dañuy gën di dëkk pour dem Europe donc loolu lépp dañu jàpp lu ñu war a njëkk mooy xool yan formation lañ ci donc ci université yi mais itam yan solution itam lañ war mën a def pour apporter itam nag lañ mën def pour étudiant bu paree paree di jàng mën a am vraiment si lu a jàpp que lu dina mën a permettre vraiment si lycée ba si collège ñoom itam ñu am vraiment li nga xam ne itam moom mooy ambition gën a jàng pour xam ne kat suñu paree seen jàng itam fi dana mën a am loo ñu mën bu ñu dundee suñu aîné yi itam suñu mag yi ñoom moom lañ doon dund même problème itam moo nekk fii di perdurer jàpp naa ñu nekk suñu jeune frères yi dañuy décourager te vraiment dootuñu am ba donc loolu autorité yi dina jàpp ni euh, euh, responsabilité partagée la mm-hmm. ñoom war nañ xoolaat seen niveau ba ba étudiant bu si balaa muy def dara ñu xool d' abord ban université dañ lay mais itam étudiant bu si pare itam accompagné la bu étudiant boobu mën a amal Euh, seen ministre euh, de tutelle ban appel nga koy lancé docteur Abdourahmane Diouf. lu ma koy lancé mooy mu bañ a def bu Cheikh Oumar Anne defoon Cheikh Oumar Anne boobu fi nekkee ministre de l'enseignement supérieur ñun suñu problème yi dañ ko daan woo di envoyé ay demande de rencontre ay correspondance pour rencontrer ko mais Cheikh Oumar Anne mu doon def sama numéro man la doon jël personnel dama envoyé message naa ma man dama war a toog parce que ñun suñu wax yi xam naa ne moom noonu la moom jàppoon na ni lépp doole la lépp xatat la par contre erreur boobu nga xam ne moom Cheikh Oumar àndoon na ñàkk waxtaan mu koy réew looloo tax amul benn réussite bu nga xam ne mooy yore enseignement supérieur donc lu ñuy wax docteur Abdourahmane mooy su fekkee dafa bëgg solution si enseignement supérieur si université privée na rencontre d' abord étudiants yi xam yan problème la doon dund pour am ay saafara balaa muy orienté waat itam yeneen yeneen yeneen Euh, dernière question moom mooy rek euh, ndaw yu bari actuellement ñi ngi jël gaali yi nit yu bari di si euh, faatu en tant que jeune naka nga gisee mbir mi jeune diplômé parce que sànq sax yaa ngi koy wax ni étudiants yu bari suñu paree du ñu am fu ñu dem dañuy obligé dugg si gaal pour dem Europe. waaw loolu nga njëkk a gisee mooy dañuy ñaanal bu baax képp nga si géej gi ñu ngi lay ñaanal yàlla yërëm leen xalal àjjana parce que ndaw yooyu la plupart dañuy nekk ak soutien de famille te ku nekk xam na lu famille sénégalaise mel tey da nga dëkk si koñ am sa xarit boo xam ne yéen a màggaale amaana yàlla dimbali na ko mu dem wala mu moom su demee benn wala ñaari at yàlla dimbali mu am loo xam ne mu am lu xam ne mi ngi koy changé seen situation familiale donc su fekkee da nga nekk ndaw nga gis sa yow te mën nga jàpp ni ba ñu nga xool yenn fois nga mën a def pour situation bi bu mën ko loolu dana jàpp ni lu si jiitu mooy responsabilité dañ koy partagé parce que autorité yii ñëw tey ñëw fan leen monsieur ñuy wax ni monsieur monsieur monsieur Diomaye Faye président de la République monsieur euh, Ousmane Sonko président de la République ñoom dañu xalaatoon ni suñu ñëwee si réew mi chômage bi nga moom la ñu problème doon dinañ jéem a tax itam am seen solution peut-être mën nañ jàpp ni quatre mois ou cinq mois noonu donc noonu defu donc ñoom soogu ñëw mais lu ñu war a njëkk def mooy xool rien cause moo tax jeunes yi di jël géej di tayle seen bakkan pour dem Europe lu si njëkk mooy jàpp na ni jeunes yooyu ñu si gën a bëri ay diplôme na mais nañu jàppale jeunes yi appel à la candidature yu ñu doon wax mais dañ ko doon waxee noonu rek dañ ko doon wax pour pour liggéey ko wala parce que parce que démb rek ñoo ngi suivre ni ministre de la astafurlah ministre de la santé mi ngi déclaré ni moom CV bu mu bu jot day xool ba xam kooku Pastef la bokk wala wala bokk ministre de la santé moom moo ko wax imagine un ministre de la république bu mën a wax loolu mais lool yow yaa ngi découragé la société nag ñaata jeunes ñoo fi nekk ay jeunes diplômés te politique bokkuñu fenn xamuñu benn politicien ñooñu leen nag nañu yaakaar mooy jàpp nañu suñu jàngee ba pare dina am loo xam ni seen mérite moom moo leen demee gis nga méritocratie tant que nekku si def jeunes yi itam dañuy continuer dem parce que su fekkee ni dañuy jàppale jeune tant que amul euh, débat politique wala topp benn ginnaaw politicien wala lépp lu nga xam ne politicien ay naxe la ñu koy def topp seen ginnaaw doo am liggéey si dëkk jàpp nañ yeneen jeunes yu amul relation yëpp ñu ngi def duñ si mais dañuy wax ne encore il fois loolu responsabilité état la donc responsabilité bi nga xam ne moo nekk si jeunesse yi mooy def nit te àdduna doo ko yaatal patience dafa baax Mm. mooy su fekkee nag da nga yàkkamti sa àdduna yàkkamti na nga war a am liggéey léegi léegi léegi ba mu jarale dem si géej gi si ñàkk sa bakkan itam da ngay perte ak sa famille parce que famille yi parents yi sonn nañ trop trop trop kon lu ñuy wax encore une fois jeunesse mooy bu ñu yàkkamti nañuy patiente ñu am humilité nañuy def teey def nànk nan jàpp na ni su fekkee ni patience boobu am na autorité yi itam seen politique yu ñu doon wax yi politique de développement pour am insertion jeunesse